ci Sénégal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal li ci julli bësin dëggal ma bësin asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci tooram ak santam allo Dakar bi ngeen di suivre saa su ne nee naa ci li gën ci yéen baax ci yéen dong ci la ñuy dox jóge nañ ci campagne électorale macha allah ñu fal ki nga xamante ni mooy président de la république monsieur Macky Sall ñu falati ko sax muy deuxième mandat allo Dakar. day dem seeti ñenn ci ñi nga ay sénégalais lañu ñenn ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci ñi voté ñenn ci ñi nga xamante ni doxalu Sénégal doxalinu Sénégal wala Sénégal jëm kanam looloo leen yitteel kenn tey dañu ko fekk si fii mu nekk di monsieur Moustapha jiite dañu koy nuyu. Euh, waaleykum salaam wa rahmatulah waa allo Dakar maa ngi leen di fay bu baax di leen dalal jàmm. di kontaan ci dajewaat bi ñu dajewaat. parce que yéen damay sawar di daje ak yéen. Moustapha Djité fan nga voté. man maa ngi voté nag euh, parcelle parce que xam nga man waa parcelle la aussi tamit moo tax euh, parcelle la voté mais xam naa ni bientôt ma transféré sama vote euh, Diourbel département Bambey ci sama village muy Djité incha allah. pourquoi nga war a transférer sa vote parce que foofu daf maa gënal ci dëkk yëpp fu ma mën di am foofu daf ma ko gënal. comme te fii ay tool la ñu nekk fi di fi liggéey donc bu ñu wàccee dañoo war di ñibbi mais léegi nag euh, moo tax ma bëgg a transférer vote bi foofu di voter foofu parce que foofu laa dëkk. d'accord comme ni nga ko waxee euh, dëggantaan ku ràcc jëmale sa kanam day day dëll nee na dafa bëgg a transférer votam fi nga xamante ni foofu mooy dëkk mënu cee ñàkk ndax fii bërëbu liggéeyukaay la toolu ut si la bu amee day yóbbu foofee nga xamante ni mooy njiite ga mu dëkk waaye tamit nee na voté na ban yëg-yëg nga am ci élection yi nga xamante ni génn nañ ko xanaa di sant yàlla bu baax santaat yàlla sax lay doon parce que sant nañ ko ba pare di kontaan ci Sénégalais yi ci maturité bi ñu am ci xam li ñu bëgg ndax euh, nañ sargal Sénégalais yi bu baax parce que kàddu yu nekk jib na fi lu nekk jib na fi ci lu mën a taalum réew te réew mi tàkkul kon nañu sant kilifa yi sant mag ñu baax ñi.

yàlla def na li muy def vraiment nit ñi wane nañ ni ki fi nekkoon ñu war koo dolliwaat ñeneen ñi doon laaj pour ñu jox leen doyaluñ ci ki ñu war a dolliwaat ba dolli nañ ko maintenant nag li ci des mooy na nit ñi walbatiku ci bërëbu liggéeyukaay yi walbatiku ci ak seen xam-xam ñi liggéey ci xam-xam ñi liggéey ci doole walbatiku ci ak seen doole ñi liggéey ci pexe tam walbatiku ci ak seen ay pexe parce que moo fi des parce que yàlla dogal na tànnaat nañ président Macky Sall kon nañ ñëpp bàyyi coow li ak wax ji diggante ñi doon xëccoo ak ñi am nag ku nekk dafa am lu la war ñi doon xëccoo te am nañ ko sant yàlla te jéem a weesu lépp loo xam ne ay wax ju ñaaw la woon wala lu ñu waxante woon te jéem a jublu ci liggéey bi woote jàmm ci dëkk bi. def ci jàmm dox jàmm gën a wàcc pour gën a jigewaat population bi parce que buñ ni rek am nañ leen doon wut mën nañ delluwaat fi ñu nekkoon dañ leen war a jege jaxasoowaat ak ñoom parce que wut day yëgsiwaat day ñëwaat te nax ñett yombul mooy nax peuple sénégalais bi ndax président bi la jox ay responsabilité pour nga liggéey ndax yàlla mi mi ñu boole moom ñun ñëpp xam nga loolu yombul. loolu bu ñu ko bàyyee xel rek dinañ ubbi bunt yi bàyyi ay numéro privé yi xaw a pousse garde corps garde yi tuuti xaw a ubbi bunt yi tuuti pour di jaxasoog askan bi di wax ak ñoom parce que loolu rek moom mooy tax bu ëllëgee bu ñuy wutaat wut bi yomb ànd ak jàmm parce que ñoom war nañ ci jàngee ni wut bi xaw xawoon na jafe donc loolu la lañ leen war a jàngal mooy bu ñu nekk mukk bay soxla nit ñi soog di jaxasoo ak nit ñi nit ñi da ngay jaxasoo ak ñoom lu jiitu nga leen di soxla pour boo leen soxla li nga leen soxlaa mën a yomb ñu fàtte lépp ba ci président de la république mu jéggal ñi mu war a jéggal ñëpp woote jàmm Sénégal dox loolu mooy wàllu ñi nga xam ne yàlla jox na leen liñ doon wut ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wut doon xëccoo tamit ñu del siwaat ci suuf am nañ lu leen war li leen war moom mooy xaxarante beeg wax ju ñaaw jéeg werante yeeg lépp yóbbuwu leen fenn ñoom seen bopp yóbbuwul senegaal fenn ñu jéem a xool nu ñu delloo xaar ba heure wutaat jot ñu wutaat te ñu nit ñi bañ a toj bañ yàq bañ jaxase bañ a taalum réew bañ a def dara loo xam ne vraiment day delloo Sénégal ginnaaw parce que bu ñu ko defee ñun ñëpp ñoo koy bokk ndax Sénégal ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo amul wàllu kii amul wàllu kële parce soo xoolee. li ñuy wax ci ay naan kii moo votel kii kële moo votel kële Sénégal ñun ñëpp a ko bokk ku fi nekk président de la république président wu ñëpp la nañ la jox respe bàyyee wax ju ñaaw ji bàyyee xaxar bi bàyyee li ñuy wax président Macky sàll ci ay wax yu ñaaw ak ay détails te ku nekk jéem a wane respect ci sa jëmmi bopp pour que nit ñi mën la respecter te respe mënul am lu dul ci warteef nekk ci li la war kon na nit ñi liggéey. dellu ñu war a dellu si tool yi dellu si tool yi comme ni ma ko waxee sànq ñu ci boutique yi si ñu tuki tuki, tukki tukki ñu war a jaay jaay ñu war a jënd jënd dëkk bi doxaat Sénégal mun a avancer loolu loolu laa am vraiment ci lu may wax nit ñi te aussi tamit nit ñi nga ay nit lañ ñi duñu ay politiciens duñu ay duñu ay duñu ñu fal ñu xam bu baax ni président duñ ko fal rek muy tibb xaalis di dugal ci poosu nit ñi muna def mooy nekk ci kaw définir benn politique boo xam ne ku nekk da nga cee am wàll wàll boo xam ni da ko ci jàppee pour que réew mi mën a àndandoo dox jëm ci kanam loolu daal bu ko ñëpp xamee euh, Sénégal dina jëm kanam te ñu moytu nag télé yi nekk ci poche yi quoi parce que <laughs> télé yi nekk ci poche yi moom lu yàqu moo ko yàq. mooy portable xam nga loolu moom tele ci poche la. Ah. moo gën a garaaw sax tele parce que télé mun ngay seetaan nit ki li muy wax neexul nga ni waaye kii moo soof. mais bii moom da ngay daal di dugg si biir rek ni ko yaa soof mu dégg la léegi kon ñu moytu ko te xam ni njariñam du affaire internet ak ay vidéo ak affaire yooyu njariñam tamit bokk na ci euh, bataax bind bataaxel wala woote wala wuyu ñu koy gën di jëfandikoo ci yooyu te moytu ko ci geneen anam gi loolu daal laa amoon vraiment loo xam ni xalaat naa ni mhm. war naa koo partager ak sama mbokku sénégalais yi mhm. ak ñi nga xam ne ay sama ay morom lañu vraiment toll ci liggéey mhm. Wara a def seen xel ci liggéey ñu war a jublu foofu pour Sénégal jëm kanam ñëpp am jàmm. jërëjëf euh, mu ngi koy waxee Moustapha Djité cant ngërëm ñenn la bu baax baax kàddu gi am solo waaye tamit équipe Allo Dakar ñu ngi lay gërëm sa kër. waaw fii moom vraiment seen kër la maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci dajawaat ak yéen ndax yéen bu taskatu comme lañ mel vraiment dinañ sawar ci jël ay micro di wax. parce que du euh, ngeen yokkal nit ay waxam du ngeen ko ko wàññil en plus tamit liggéey bu professionnel ngeen di def kontaan nañ ci yéen bu baax a baax vraiment di ñaan kër gi jëm kanam. tamit kontaan nañ ci yow bu baax a baax ndax buñ saay ñu ñëwee dinañu dalal teral ñu ba pare dalal ñu tatagal ñu macha allah monsieur Djité cant ngërëm ñeel na la yow it bu baax a baax waaye yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi teewlu tamit cant ngërëm ñeel na leen nee naa la dañ jógee ci élection te ku nekk am nga ci benn yëg-yëg boo xamante ni am nga ko ñun nag dañuy jéeg déplacé wu ak suñu équipe Allo Dakar dem seeti leen ku nekk li nga yëg nga daal di koy wax ndax Sénégal sunu gaal la saa su ne ma ñaaxati leen ne leewu newoon naa leen ne vingt 24 février day jàll Sénégal day des ñoo ko moom sama Macky Sall yàlla dogal na mu falu nañ ko ko nangul rek te ñaanal yàlla ndox mu sedd guy sotteeku file Sénégal sunu gaal gaal gi saay su ne nañu koy joow mu teer ndax saay su teeree di sama njëriñ di seeni njëriñ di suñu njëriñu ñun ñëpp seen émission li ci xel yi saay su ne nii lay demee li nekk ci xelu sénégalais nee naa saay su dañu koy génne kon nag jàmm ak jàmm ba beneen yoon incha allah jërë ngeen